leen di nuyu di féliciter assistance bi fi nekk di féliciter le front di wax rek na président Macky Sall gëm yàlla parce que sénégalais yi desee lu ñu ko dara fal nañu ko ni ñu ko waroon a fale tey jii ñu ngi xaar mu delloo sénégalais yi li ñu ko joxoon dañu ko joxoon réew mu ne ñum waaye ngalawaay na góorgóorlu delloo nu réew mu ne ñum di ñu ko joxoon suma kàddu bokk na ci wax ak ñi nga xam ne tey jii dañuy mbubboo les policiers c'est important bu ñu kenn mbubboo madame Aminata Touré mi ma précédé léegi bi ñuy bind président de la république musuñu ko wax ne ko na reporter élection musuñu ko demander audience c'est pourquoi bi mu waxee ne dafay recevoir les spoliés man ak moom bokk nañu ci ne duñu dem wuy jiko parce que jàpp nañu ne ndaje moomu amul njariñ la ñu jàppoon mooy la ñu waxoon conseil constitutionnel donte dañ ñu tooñ donte dañoo jël suñu droit caxat-caxatee sàcc suñu ay parrainage c'est ça la réalité waaye nag yoon bu jugee yoon bu dogalee des koy nangu le 2 avril 19 candidats yii toog fii kenn ci ñoom moo war a nekk président de la République du Sénégal le 2 avril suñu contrat ak président Macky jeex na le 2 avril dañu war a am président bu bees parce que nag loolu la constitution bi wax te constitution li mu wax donte metti na donte am nañu ci ñun ñii lu ñu metti ñu ñu duppee les spoliés waaye nag faw nit ki gëm yàlla te la ma waxoon ma dellu si golo gi mu ngi ci tool bi di yàq nañu génne golo gi ci tool bi ba pare doog a waxtaan loolu mooy li ma gëm beneen bi ci des les politiques vous avez une lourde responsabilité ni ñu dajee boole suñu doole ne dañuy xeex pour que ñu respecter constitution bi ak li nga xam ne moom moo di le calendrier électoral nga la waay nañu ko defee noonu pour que loi d'amnistie bi mu ndi sa ngeen taxaw takk seen ndigg ba loi d'amnistie boobu bañ a jàll yéen politiciens yi moomu leen Sénégal c'est important nit ñi dañ leen jiital ngeen taxaw ne war ngeen a taxaw bokk ci liy defar Sénégal waaye waruñu leen waru leen takkal seen bopp wala ngeen ñawal seen bopp mbubb boo xam ne daf leen di defal immunité ba lu leen neex def ci réew saa ça ni ñu taxawee pour xeex lii di musiba di Macky Sall nar a dugal Sénégal noonu lañu ñu war a taxawee pour xeex cette loi d'amnistie bi nga xam ne musiba la ci réew mi nit ñaa ngi jooy seeni néew jot na jaadu na ñu wax naka la mbir yi demee ku ci sa loxo taq ñu rëq sa ndigg parce que nag loolu mooy yoon loolu mooy loi maa ngi leen di encourager di encourager encore une fois le front et di wax ne restons unis benn adversaire la ñu am c'est le président Macky Sall et il doit débarrasser le plancher le 2 avril incha allah jërë ngeen